par rapport ak euh, yeneen weer yi ñu génn. bagage yi moom mi ngi ñëw waaye par rapport ak ni mu daan ñëwee bu njëkk wax dëgg yàlla mi ngi ñëw moom waaye par rapport ak ni mu daan ñëwee ndax fi jamono ji toll ndax li ñu am nii sax wax dëgg yàlla séntu wuñ ko woon waaw li ñu am wuñ ko woon waaye yàlla def na comme que koor gi mën na ni semaine moo ci des te boobu léegi ñi ngi mën a rafetaay jigéen suñu client yi ñu ngi leen mën a jox bagage kon wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax a baax client yi dëkk bii bi moom ñi ngi ñëw bu baax a baax waaye par rapport ak ñi ñi ci waaye ñi ci biir dëkk bi ngi ñëw bu baax a baax a baax ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw comme ni ñu ñëwee. waaw bagage yi moom macha allah vraiment rafet na trop te gis nañ fa ay nouveauté yeneen modèle yu bees mais gis na ne tamit euh, presque daal euh, prix yi sorewul seulement nag jamono ji euh, fi mu toll xaalis bi moom ni mu yombee woon yombeetul noonu parce que ni nga mënoon liggéeyee sa jël sa temps liggéey ba sa heure nga wàcc amatoo boobu opportunité mais bagage yi moom sinon vraiment gisuma ci benn os prix yi moom vraiment abordable na. waaw loolu moom euh, moo ngi ñëw mais tamit euh, bu mënoon état bi bu mënoon euh, bàyyi xel commerçant yi parce que commerçant moo yore réew mi Sénégal dëkkub commerce la te buñ ci génnee commerçant yi ñu bëri danañ ko danañ ko yëg ndax da ngay gis ñoo xamante ni duñ ay commerçant clients yi la dañuy ñëw di jënd bu ñëwee di jënd seen marchandises yi fekk état yokku na bagage yi wala dédouanement bi wala euh, euh, kii yi koy indi bagages yi pour li koy indee yooyu nga xamante day seer léegi bu ñëwee fii loo xamante ni da daan jar dix mille bu ñu ko duwaañee ba pare muy jar onze mille wala muy jar douze mille client bi nga xamante ni ak jamono ji euh, nga xamante ni fi mu toll nii kenn amatut droit pour di génn ak yenn liggéey yi nga xamante ni sunu temps bi mayetuñ ko daanaka quinze heures marché Ocass gépp wàcc. xam nga boobaa dana métti ci client yi moo tax euh, il faut état bi mu gestu commerçant yi. non prix waa changé na tuuti tuuti tuuti c'est parce que ne euh, prix li tax mu changé mooy bagage amul moo tax prix yi xaw a changé tuuti te it euh, bagage fi mu toll nii am na yu ci manqué lool lool lool ndax lu ci bëree bëri Chine lay génne wala Dubaï wala Turquie te buñ dee xool bagage bi nekk ci ci terrain pour le moment Turquie moo ci ëpp doole Chine. moo tax fi mu toll nii prix yu ci bëree bëri xaw naa xaw na changé par rapport ak daaw daal. tàndar moo ngi ñëw mais bëreegu fi te ba pare seer na trop moo ngi ñëw mais bëreegu fi ba pare seer na euh, kon ñi nga xamante ni am na ci loo xamante ni nag moom commerçant yi ci boppam war nañ ci waslu àq. am na su ñoo xamante ni amoon nañ tàndarma bu yàgg a yàgg yàgg waaye dañ koy jël di ko denc pour bëgg affaire bi gën a yokk ban ban ban ban ban ban ban ban doxale si neneen te loolu rafetul loolu baaxul commerce da ngay xool sa diggante ak sa borom loo jëndee nga xool li nga ci mën a teg mu néew ak mu ñàkk bañ a bari nga nga nga jàppale nga jàppale client mais da ngay gis koo xam ne day jënd carton tàndarma 8000 denc denc denc ba ah, tàndarma jar 12000 mu génn di ko jaayee 12000 xam nga loolu jaay yooyu noonu jaay salte yooyu baaxul il faut que ngay ngeen di jàppale euh, client yi. non non bagage yi moom yokkuwul. daanaka li mën naa ne sax bëgg gëj naa ñëw li am nii lépp daf fekkoon mu mu nekkoon lu lu lu commencé woon a ñëw waaye bagage yi moom yokkuwul lim daan jar lay jar ba léegi muy thermos muy tâche vaisselle yi lépp lim daan jar dong lay jar ba léegi amul changement loolu jigéen ñee ko wax jigéen ñee naan daa yokku daa yokku waaye dara yokku. en général bu ñu soxla woon am juróom-ñett yi kon je pense kon euh, li ñu soxla ñu ngi koy am prix tamit tamit abordable na dañu yomb duñu seen mais abordable maanaam yenn na maanaa daal parce que lu baax moom mënut a yomb par rapport la la qualité moom mënut a mënut a bokk li nga xamante ne si euh, yu kii. bien sûr loolu moo ñoo yem comme ça moom xamul xamul maam euh, bagage manqué tax mu waaye ñun bokk xamuñu loolu li ñu daan jar lañ jëf bu yokkoo ñu yokk wàññi ko ñu wàññi ñun noonu la ñuy doxee sama wàll. feebar bi moom euh, feeñ na ci njaay mi parce que ñoom ci seen côté ak man sama côté dama doon ñëw ci marché bi tardivement di jënd di yóbbu sama kër léeg-léeg cinq heures laay ñëw te heure bi changé na. parce que léegi euh, à partir de 15 heures porte yëpp dañuy yëpp dañuy fermer di midi même moom sax ce matin bi ma ko woowee daf ma ne teel a la ñëw ndax après midi bi damay añ suñu kër léegi kenn indilatuma añ. 3 heures bi ñuy wàcc fi mu doon moo tax client yi waroon ñëw ci moom ñëpp dañuy profité ñëw ci heure bii nii diggante dix heures ba 2 heures. loolu moo tax euh, mu ñu xaw a xat xaw a métti lu mu xaw a métti tuuti waaye nag sant yàlla bu baax. lu ñu yokkaat rek ñun ñu ne dañuy yokkaat ndax. état du la yokkal nga ñëw di wàññi wala ngay wanteer faaw nga yokk te boobaa kon ci client bi lay lay lay metti moo tax état bi faaw mu gëstu commerçant yi. bu fekkente ni bokk ci ñun li ñuy jaay wàllum commerce ay xeet yu ñuy lekk ay diwa ki soble yu demee noonu bagage bu yomb moom gisaguma ko wax dëgg yàlla ndax bagage bu daan jar euh, lu lu 1000 francs yokk nañ si double nañ si léegi 1000 francs wala 2000 xam nga loolu. loolu loolu tamit war nañ see jàpp bu baax a baax a baax bagage moom benn bagage bu yop bu yomb moom instant bi nii actuellement nii amut amagut bagage yëpp a seer diw diw diw bërki démb bërki démb matagut semaine matagut semaine 17000 la doon jar instant moo ngi jar 18000 ci mët ci lu mëtagut semaine 18000 moo ngi koy jar fi nii xam nga ne kon kooku client bi dana tiit ndax ci kanam tuuti suñu demee ay côté Korité yu demee noonu te état instant comme que ñoo ngi si euh, ci lu kenn xamul kañ lay jeex kenn ku nekk fi mu ne nii ñoo ngi depp seen bagage yi pour bëgg xool ba xam la situation yi demee buñ arrêté transport beeg yu demee noonu ñu am na wàllu si occasion yokk seen bagage yi demee noonu. am am nañ sel mi ngi ni ñu teg boo ñëwee rek dañ la koy jox nga moom léegi laa koy teg <laughs> même koy teg aussi. ñu ngi sensibiliser bu baax a baax ndax soo gisee clients yi ni ñuy toogee ne ci bunt bi bañ na ko ba dañoo teg ñëwee dañuy toogloo lu yem ñooy dugg ci bi bu ñu jëndee comme ni ñu doon xatee dootu ko xatee et puis teg nañ ay gel pour clients yi ku ñëw. ñu defal la nga raxasu encore teg nañ ci bunt bi comme ne ay butéelu ndox eau yoo xam ne pour ñi ñi nga xam dañuy jógee fu sori ak ñi nga xam dañuy dugg ci marché ba génna bu a dugg ñuy matuwaay bu a a baax mm, def prévention teg fii ay baril yoo xam ne ku ñëw da raxasu ba set euh, lenqli sa ay loxo ñu jox la mouchoir à jeter nga fomp say loxo kon am am na beneen mesure de sécurité bu ci dugg si vraiment am na hygiène te clients yi aussi ni ñu doon duggee borom place bi da koy espacé nangul clients yi bari dugg ba fees bu 10 personnes duggee wala 7 rek maximum day daal di arrêté ñu ngi des ni leen dem leen ci yeneen place su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay